abonnel bu faté bëss notification bi ngir ngay am suñu vidéo euh, soxna fat sama benen question bi euh ñaata façon rap mo am wa rap mo bëre nay façon rap bëre nay façon wa amna rap bo xamné xam rabu bu gëna bon ci rab yi mooy rabu bete bete waaw man mom rap yëpp lay fajj yëpp lay fajj yëpp wa rap bu mu mënti doon boo inshallah allah ci carton yalla dina la fajj ta suma la fajj yalla mën na def li ngay sentu ci man nga fekk ko fi ta te nga am tan bu baax sax mais yow mais yow ban nga ci ban nga ci gëna man ban ban ram nga ci gëna man <laughs> wa rabbi mom yi nañ fo rabbi mom tay mo la ko doon limal fi duñ jeex du jeex wa wa la rabbi yi nañ la parce que man man mi lu kepp xam nga man neena la man lëg daawoon bay ku ma gis ko ku ma gis ndax xam na ne man may ndëppal lëg daaw damay tuural lëg daawoon bay waaw damay tuural lëg daawoon da suufu teeru bi fa laay tuuree waaw. ah d' accord ah kon yow yow yow da ngay tuural lëg daawur mbay. damay tuural lëg daawur mbay waaw man dama koy tuural waaw kon yaakaar naa affaire rab moom lu ma ci waaye wax lu ne lu ma ci mënta wax nit nit mënu ma ko cee wax. waaw parce que ba may doog a débuté ci faj rab laa njëkkee ba may doog commencé rab laa njëkk faj parce que loolu la ma rawaan yi njëkk a digal waaw. Euh, kon point boobu leer na euh, beneen point bi may duggaat rek soxna faatu euh, mooy jamono ji ñu toll nii dafa dafa bëri ci côté góor ak côté jigéen. bu dee ci côté jigéen léeg dañuy dugg damay gis jigéen bu dugg ci néegu sëy pour mu toog ci néegu sëyam sëy problème lay doon bu dee ci góor pour mu am soxna problème lay doon ma doon laaj ndax yow loolu am nga ci solution. waaw parce que loolu lu koy indi lu ci ëpp am àndandoo da koy def rab da koy indi comme boo amee faru rab bu fekkee ku jigéen ki boo amee faru rab mooy waral lu ci bëri doo am jëkkër am na ñoo xam ne sax day ñëw ba dinañ téye du am doom waaw ay ji xale yu jigéen ñi ngi fii ñu bëri problème jur ñu ko ñu yaakaar ne fibrome la wala dara déedéet rab da koy def am na góor yoo xam ne aussi tam ñu ngi fii am na góor yu yu bëri yoo xam ne sax dañoo tële ñëw nañ ba tële ñu yaakaar ne leen la fekk noo raba leen koy def waaw rab lu muy def dafa bëri buñ ko doon wax fii ba suba du jeex rab dafa bari caprice te ñun jamono gi rab dafa bari ki doomu aadama yi gàllankoor yu bëri rab yee koy indi jamono bi ñu nekk ni lu ci bëri nit a ngi dox wóor na yàlla laal fekk noo rab ak ko yóbbee nit a ngi nekk di nekk ci buntu wërsëgam mënu koo am mu yaakaar nit a ko def fekk noo nit def ko fekk noo àndandoor ko ma àndal moo koy def moo koy teg gàllankoor yooyu noonu xamuñu loolu ñu bëre nak dëgg la fekk no nak andando bañu andal mo koy def jamono bi néew ma nit ñi nekkuñu di def nit ñi de mais lu ci ëpp rab koy tek doom adamay abonnel bu faté bëss notification bi ngir ngay am suñu vidéo.